الأشهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمني لرب كاري من لا شريك له وصدري اليومان رنسات عملاء محمد صلوات الله في أباد عليه في حسبه كل به كلاء أدعو إله الذي همات مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جل ومن وكرمني تكريم هاد وكل لي من لخن بريئا رحمن حب لجامي الخلق رحمة يغني عني الشر من قرآن قراء هد أمة عن كل مفسدات ولترحم القلقايا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء محوت ما قد ناحى القلب من ضرار بجاه أفضل من لله قد لجأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيو نان باتي سيرن محمد دال مو سيري تي لو خامتاني دويون نا سك نون موم لا ني ويتليكو واي كي نك ديمبلونو ليغي رك سيني عبد الله دافا ني خاوما كو كو گن سيني عبد جوكوم مباخم بëggëm sëriñ bi ak bëggëm lu baax may na ko lu ne moo tax Mbàkke ñëpp danañ la fekk fii waaye nag bu kenn ñëwaatutat kii ñëw doy na sëg kii mooy yoon wi kii la sëñ Ablaat taxawloon kii neewul rek maay doomi sëñ Ablaat de waaye dafa uti jom uti fulla uti fayda am dignité xam mooy kan mooy Cheikh Mamadan nun nag amuñu ci moom sago bi mu jógee it ànd naak yoonu murit waa kër sëñ Malick Basin si sëñ Mourtala si ngi nii sëñ Xaadim juuf waa kër sëñ Aliou Diouf li ñu bëgg a wax rek mooy ànd naag yoon wi te ñii ñooy yoon wi ñii nag la sëñ Moussa Ka waxoon rek Mbàkke ci lañ ne dane woon Sëriñ Tuubaa ñun tuxu nañ suñu kër yi bàyyi gàddaay def la ngën gi bàyyi Tuubaa di kër Bàmbaa di waay sarax nu naatal xarnu bi kon sa ñëw gi fii yàlla taw tawfiix yi ñëpp ci barke sëñ Tuubaa nga ñëw fi nag fekkaat fi ki nga xam ne daaw fekk nga ko fi muy monsieur le maire muy premier magistrat de la ville de Parcelles muy Jami Sané nga xam ni kenn la koo xam ni bis bi jaral na ko lu ne kon nag nun jàpp nan la li tax nu jàppale itam xëy na sax du banlieue bañ bokk xëy na du parcelle loola sax war naa tax nu jàpp la ndax yaa ngi fay liggéey waaye ni nga def kii rek la kon noo ngi ñaan sa tànk yi yàlla nañ sa yokkute ci barke Cheikh na Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon bisimilah Mbacke noo ngi jéggulu moom suñu xarit la waaw kaddu yi mooy dama ne il faut ma seede si ndax ñi nga xam ne du leen fekk kii maa moom dun ñaari nit te day ànd boo xam ni dara laltaayu ko dudul yàlla kese ak sañ sëñ waa doo am du intérêt xam nga li ma la moom xoolal kuy nitam sama nit nga kuy sama nit ak nitam nga boo xamee nit sax ku muy koo xam ne wóor na ko ni bu ñëwee sama jataay di ko fay fekk ñi may miin ñëpp dañ ma koy wax kenn ku ci ne yow dalay jox sa cofeelu bopp goo xam ni tey jii bi may ñëw ñi ci ëpp ñëpp ku ci ne yaa sàkku ni ma sëñ bi maa bëgg ànd yow ci Abdou seexu naa mais seede la ci ak ñeneen ñëpp ñu mu fay fekk ñi fay fekk ñu mu bokkal Daaru Muxti sax te leen fekk sama biir kër ñu ay doomam ku mu fay faral di fekk sax jox na lépp cër ci boppam boo xam ne tey sama diggam moom a tax yàlla boole nu boole nuy xarit boole nu lépp belaan mi xam ne ci dara Ousmane Tanor Dieng gis nga ne demante woon nun ñëpp ak moom li yàlla def kenn xamul lan la bu ko defee moom nag li nga wax léegi lay dëggal kuy ku bëgg lu baax te misaala saratin ci sab xol ci lu baax nekk ci Abdou da nga ko jàpp danga ko fonk ndax jikkoom ndax as gor la ab jullit la te ci dëggalee dox xoolal te du ànd ak kenn kenn kenn ngir intérêt loolu mën naa ko seetal Abdou ak sama travail ba loolu mooy sama bas nag mu am relation fépp ni mu ko amee ci Daaru Musi gii tey soo fi ñëwee bis bu dul màggal nga ñëw fii ci kër Baye sax gii tey ñu ëpp ci Daaru Musi ci këram gii la ñuy sose su fekkee mi ngi fi te loolu mooy liggéey yoon la mooy liggéey bi sëñ Touba santaane ci yoon ci ci biir yoon bi nag yeneen tarixe yi ci biir Sénégal yëpp ne sëñ Touba doxe woon moom amul frontière ci génn kër tey jii loolu bu subaa dana feeñ fi léegi suba incha allah beneen bi lim junj léegi lim junj léegi ci wëllëreem mu di léppam muy Ousmane Sonko sunu kóllëre ak i waajuram dafa yàgg Abdou wax na ko léegi ëpp na 40 yaa ngi may dégg. Mm-hmm. defe naa ni bi may jógee Porokhane di jaar ci nijaayam booba moom xale bu ndaw la di vacances ci kër nijaayam mais xaw ma woon loolu. biñ demee ba yëngu yu bare nag te Abdou mii moo ko jëkk indi sama kër la jëkk a dugg ci Touba bi yëngu yu bare nag la ma ne la nijaay ji woote. ni ma sëñ bi di na xam ni Sonko mu mu ngay dégg sa sab jarbaat la mooy ki nga daa fekk sama biir kër muy wokaas ma xam ko bu baax xam Xadi Malick ndeyam ngir kóllëre yi doxoon suñu diggante sama digg ak nijaayam ba ma tudde ko doom xam nga li ma la wax barki démb bi nijaay ji mayee doomam kim tuddee yaayu Sonko man la ko bàyyileel maa yebal xuddoos mu dem mayee ji ko ma woon la rek li lay def loolu lépp nag mi ngi dikkaat ci sama dikk kii ni nu bokkee ay xarit bokk ay relation bokk lépp xam nga li ma la wax ma ne mun nag nun wax lu mu gëmut wala ñu def ko ñun ñun duñ ko def waaye Abdou moom xam na man xam naa te amul lu nu umpante man ak moom bu nekkee bitim réew du nu umpante bu nekkee ci biir réew mi du nu umpante lépp lu Abdou nekk xam naa ko lépp lu ma nekk Abdou xam na ko jëm yi ñu di la gërëm bu baax nag ndax tase woon nañ fi daaw di yàlla ñu tase fi déwén yow moom xam nga ni mbir mi demee lu nu wax rek lu nu gëm lay doon boo gisee bi ñuy ñëw daanaka li kiy wax léegi yoonu murid yëpp ànd na ci ndax ñi ñi Sëñ Tuubaa defar seeni i maam ak seeni waajur ñoom lañu àndal ñëw fii tey ngir gën a fetli si kóllëre ak gën a yeesal diggante ci Thierno Birahim ak Sëñ Tuubaa rawatina sëñ Abdou Lahad jëloon ma man mi tudde ma doom yi Thierno Birahim gannaaw bu mu jëlaatee sama rakk tuddi ko Thierno Birahim am lu bari lum nu ci daan netti loo xam ne jataay bi laajul ñu di ko leeral waaye noonu xam nan ba ci toppit Baye Cheikh bi waajuru sëñ bi amoon si ñun cofee lool daa ma wax ni ma ñaari cër nga fi am muy cëru borom Touba bi ak cëru Daaru Musti bi daa ma wax ni tubaa yaanu fa nekkal noonu waa Daaru kon nag tey boo gisee ma ànd ak njabootu suñ Touba gépp ñëw fi Baye Cheikh waajuram dafa lu ma nettali woon ne sëñ Abdou moo ko nettali woon moog suñ mu daaw balla ñu ne dañoo ñëw fii seet sëñ Abdou Lahad moog suñ mu daaw balla ba ñuy yendoo bay tàggook moom mu ne leen bis bi Cerno Birahim gisanteeg sëñ Tuubaa muy bisub tey bi bañ saafontee loxo ne sëñ bi dañuy nikk ci loxoom ni ko su fekkoon ne yaa demoon ma des la gannaaw ni nga ma taxawale sa sama gannaaw du ma la ko mën a taxawale moom waaye li ma la ciy fayee nag mooy liggéey baa ngi teg naa ko sa am na gërëm bu ñàkk na la xaram liggéey boobu ñu teg ci loxoom te tegoon ko ko ci bis bii nag mbooleeg maa ñi ma àndal ñëpp rek loolu la ñuy sàkku si di ko sàkkuwaaleel nag kuy taalibe Sëñ Tuubaa di ko sàkkuwaaleel ku dib jullit te xam ne Sëñ Tuubaa mën na cee joggi faj aajo yi bindeef yëpp jërë ngeen jëf. ginnaaw bu ngeen déggee kàddu yooyu tukkee ci Serigne Mahmoudane Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Touba Khadim Rasoul mu ñëw ci jataay bi fekk si sëriñ Abdou Rahman Mbakke muy Abdou Mbakke moom sëriñ Cheikh Khady eh, ngeen gis nag eh, kii di sëriñ Moustapha Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke Khadim Rasoul mu ñëw seet si mbokkam siyaare si ko ci bis bi nga xam ne mooy bisu màggalu Daaru Muxti ci atum 2023 hmm, بجاه أفضل من لله قد لجاء حمني لرب كاري من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملاء محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه كل به كلا أدعو إله الذي همات مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جل ومن وكرمني تكريم هاد وكل لي من لخن بريئا رحمن حب لجامي الخلق رحمة يغني عني الشر من قرآن قراء هتم المستقبل عن كل مفسدات ولترحم القلقايا من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء محوت ما قد ناحى القلب من ضرار بجاه أفضل من لله قد لجأ